non moo dernier mot mooy rek su ma delloo jaale euh, vraiment ñi nga xamante ni ñàkk nañu ay ay mbokk ci manifestation yi nga xamante ni amoon na ñaanal leen yàlla xar leen àjjana ma woote rek jàmm woote jàmm Sénégal Sénégal dañu tàmm mu nekk réew boo xamante ni yàgg nañu am tension yenn saa damay gis Sénégal su tension amee à la des élections ñu mel ni réew mi day tàkk wala àddina dafay tukki ma ne man bind naa benn livre boo xamante ni maa ngi ko tuddee les élections présidentielles au Sénégal ma analyser élection yëpp élection bu nekk damay jël contexte élection bi tension bi ni muy amee 63 tension 63 d'ailleurs il y a eu une cinquantaine de morts 68 élection bi indi crise 68 bi 73 boobu calmoon na mais immédiatement 78 ñoom Cheikh ñëwee yooyu ñu bañ ñu nekk candidat la Wade ak Senghor nekk candidat tension bi ñëwoon 83 83 bi ñëwee ne Abdou Diouf c'est la succession dynastique war moo ko jàppale mais war fi nekk candidat et cetera 88 88 Dakar état d'urgence la defoon xam nga bi état d'urgence amul 88 on a fait l'état d'urgence leen devant la cour de sûreté de l'État après la ñu amnistié 88 Dakar était à était était sens de substance pas un à feu et à nga wax à feu et à sang c'était yow polémique bi am ñu rey maître Babacar Seye comme juge assassiné ko 2000 dañu ne non fii fraude bi day am ci carte israélienne yi duñu euh, d'accord élection am ñu def élection Abdou Diouf ñàkk élection yi 2007 gars yi ne non Ablaye Wade duñu ko d'accord dafa bëgg a sàcc élection yi xaw ma lan dañoo dañuy boycotté gars yi ñëw def élection 2007 bi boycotté législative bu 2007 yi 2012 ñu ne réew tàkk na parce que Ablaye dafa bëgg troisième candidature bi conseil constitutionnel day am ñu dem Ablaye ñu gagné ko ñu def passation de service bi <laughs> bi ñu ñëwee 2019 même chose ko d' accord dañuy taal réew bi si ñu fi demee parrainage ñu def parrainage am cinq candidats élection yi jaar yoon ah Macky Sall jiitu Idrissa Seck topp ci Ousmane Sonko nekk troisième ñu jàll bii tam suñu ñëwee la amoon rek moo amaat. di ngeen tension vous allez donc loolu c' est c'est c'est dans l'ADN des Sénégalais su période électorale ñëwee day am tension moo tax damay wax gars yi chaque fois ne leen il faut il faut dédramatiser il faut relativiser loolu c'est notre ADN dinañu wax ñu xeex et cetera mais ñun nitu jàmm lañu dëkk bi dëkku jàmm la. xamul tax xamul tax problème du am parce que après on va être d'accord sur ce qui intéresse tout le monde xam nga lan moo intéresse ñëpp wax ji wax ji. élection jaar yoon.